li ma doon interpellé Kajoor dinaa la si interpellé parce que nag dañu gis waa euh, France 24 daal di abrégé suñu président de la République euh, bind le sénégalais mu mel ni benn manque de respect la bu nga xamante ni képp kuy sénégalais yaa ngi koy ñaawlu et que euh, loolu nga gis ndax partagé nga loolu. waaw mais man bu ma gisee daf ma métti trop parce que quand le France France 24 xëy bindu ne le sénégalais loolu moom képp kuy doomu Sénégal dina la métti ba fu voilà ndax euh, France réew la ñun ñuy réew te defe naa France ñun ñoo ko jëriñ mais mosuñoo jëriñ safe naa ko ñoom Afrique rek la ñuy piyee di leen naan di ko jëriñoo mm-hmm. mais Afrique comme ñoom dañu dépendre si ñun te ñun dépendre ci ñoom Sénégal dépendre ci France pour développer te France dafa dépendre ci pays africain pour développer ne reste que nag ñu ñu respecter les autorités africaines quoi. Mm-hmm, mm-hmm. président de la République nga koy euh, tutoyer di bind un Sénégalais bu ñëw France mais ñàkk manque de respect. total moo total moo fa am quoi. Mm-hmm. ñun dañu insulter notre pays quand tout toute la nation du Sénégal la France 24 insulté. parce que man bu ma bokkul ak ñoom couleur politique Sénégal moo ma gënal parti politique moom ma gënal nit. en tant que Bassirou Diomaye Faye quel que soit Alpha mooy suñu président de la République réew. réew muñ nekkal naataangoo ak bépp groupe de presse bu da nga koy respecté ñun ñu koy opposé sax dañ ko respecté en tant que institution parce que chef d'État. Mhm. kon képp ku ko manqué de respect ñun Sénégalais yi fu nga manqué de respect. tout à fait